muy xew-xew bu tiis lool muy menn mbokk moo xam ne dafa ray boppam yóbbaale yetti doomam euh, mooy li ñuy tudde xaru euh, muy mbir moo xam ne nag mbir mu tiis la lool waaye du ñàkk moos nag ñu jéem ci am ay bind nan la nit di àgge fu mel noona nan la nit di àgge lan moo yóbboo nit mu dem ba gis ne ak dundam amatul njariñ daa war a rey boppam ñu ne déetawaay mu yóbbaale ay nit kenn ñaar ba ñett ñu ne déet ñooña nekk ña ko gën a jege gën a sax ci xolam ñañ jàppoon ne ñoom la war a gën a bëgg lan moo mën a yóbbu yóbbu yóbbe nit foofu Euh, bu dee jëmmi mbokk mi def loolu du nu nekk di ko yedd walla ñuy xuus ca biir ndax ndekam moom lu mën a xew génn na àdduna te nee ñu ab jullit la woon lañu lislaam sant rek lañuy def mooy tudd lañu xam ci moom ci lu baax lañ xam ci moom ci ab safaan ñu ñaan yàlla jéggal ko ko kon nag moom mbokk moom it ñu ngi ñaan yàlla jéggal ko ñu ngi ñaan yàlla njaboot gu sew googee suñ boroom jéggal leen te loolu dañ ci am yaakaar ndax ñoom defuñu dara te it nag ay gone lañu ay gone lañu tolluwuñu woon fu ñuy leen takkilife di leen bindal ay bàkkaar ak yu mel noonu ci niñ ko déggee kon ruñ foofu yét duñ nekk di ko jugé di ko yedd lu tax mu def nangam ak lam bind ak lam def nangam loolu dañ koy teg nee waaye nag ci jëmmi xew-xew bi rek lañuy jàngat mbokk yu tedd yi sunu réew mii day dafa mel ne yàlla naka jekk yàgg na leen a may ay jikko yu rafet waaye ak ay mag yoo xam ne ay royukaay lañu yàlla fàttewunu moo xam ci wàllu diine moo xam ci wàllu aada ju rafet mu mel ne jëngagunu ci taarixu réew mi nag phénomène bii di waaja xew ñu koy tudde xaru mooy rey sa bopp rawante nak nak xaru di yobale ñeneen waye mu melne ci jamono yi ci at yu mujj yi mom liñ koy gis melne na ne bari na mom xaru mom amna fi lu fa xewon ci jamono yele moy taal sa bop moy xaru go xamne ne yow da ngay sotti sa bop rek dara nga taal sa bop bam jeex ña ni defoon fi mu toll nit ñi daanaka kenn tuddatu Yalla na yalla yeureum len te len leen bëtub subhanahu wa taala way liñ ci mën a jàng ñun ñi dund moy dafa mel kenn tuddatu len kenn waxatu ci ñom dara tudde wuñ len dara sax na li kat diw mo jaayon bakkanam ngir ba président mo defon nangam xana ña taxoon ñu diko def sax num fàtte nañ kon lolu naka jek bokkut ci sunu aada même budul sax walu ray sa bop rawatina di yóbbaale kenn loolu moom bokkutoon ci sunu aada bokkutoon ci sunu aada xew-xew bi nga xam ne moo fi xewoon ca ay jamono loolu moom ca jamonoy ceddo la woon mooy ñoo xam ne dañ leen a naroon a def dara ñu daan ne nun day wax dëgg yàlla sunu ngor ak suñu dignité mayu ñu lii bu ñu naree teg nangam xawi sunu sutura loola dee moonu ko gënal loolu defe naa benn yoon la amoon ci histoire Sénégal waaye am naa ay civil nag kuy dee koo xam ne danaan damay rey saa bopp ndax dama am loo ma metti sama soxna wala sama doom nii wala dama amul liggéey wala awma jëkkër wala awma nàngam wala awma xaalis wala nit ñi dañ may xas loolu bokkul ci sunuy aada loolu ci aada yi yi la bokk loolu li muy tekki rek mooy kon nun aaday tubaab dafa mel ne mi ñuy dugg fukki at yii fukki at ak juróom yii ñaar fukki at mooy ñoo xam ne ay pël lañ wala ay séeréer wala ay wolof wala ay nangam cosaanoo ci réew mi waaye jàng tubaab wala ñu dëkk ak tubaab ya tax ba ñu ñëwee ñu xeeb seeni maam xeeb la ñuy dund xas dund gi xas réew mi daal di jàpp ne dunduk tubaab yaa baax te moo ne di tubaab yi nga xam ne ñoom am nañ lépp ci àdduna ba léegi seenu dund jegagut ba léegi xaru ga fa la ëpp xaru ga fa la ëpp rey nit muy agression meurtre Amérique daanaka la ëppee xaru moom Amérique la wulee ñaay daanaka ay gone yi ndaw ñooy xaru ku am loolu naka rek daal di xaru borom alal yor alal yu bari xaru kon tubaabee dëgg la am nañ adduna lu bari waaye amaguñ jàmm xol bu sedd amaguñ ko amaguñ xol bu dal ndax alaa bi dikrillaahi tatma'innul xulub dañoo amul yàlla te yàlla ci la ab xol di dale kon ñoom duñu ñu rayukaay bu ñu xooloon seeni résultat seeni kaso fees na wàllu corruption wàllu roy sa bopp wàllu nàngam kon ñoom du ay royukaay waaye nun de ñoom rek la ñuy roy moo ne nun de am nañ ay royukaay bu dee ci diine bu dee ci aada naka jekk Sénégal réew la moo xam seen aada mooy bañ bañ lu ñaaw bañ kersa dégg nga bañ a mujj posé bi mu réer am ngor lool naka jekk dafay sax laataa lislaam di ñëw lool lool même ñi amutoon lislaam sax yii dañ koo dañ koo fonkoon incha allah hind keroog bi ñuy jaayante ak yonente bi ginnaaw bi ñu nekk ay yéefar di tuub euh, isa jaaka al muminaatu yubayi'naka ala an laa yushrikna billahi shay'an wala na bañ àggee ci wala yees nii na ne ah ñoom jigéen ñi kat bu ñuy yaayante nañ jaayante ne nañ la topp yow yonent bi tax bu ñu njaalo dana ko ah, njaalo moom as gor sax waru koo def waxuma la jullit noonu bañ dugg ci diine sa nekk ay ceddo njaalo moom dañ ko mas a seexlu kon nga gis ne Sénégal lu mel ne dafay am laataa lislaam di ñëw dañoo amoon ay cosaan am yu dëgër am ay maam yoo xam ne même ca jamono cedd ko sax amoon am na luñ doon bañ ba yàlla ay kilifa yoo xam ne nag ay maami diine lañu ñëw topp diine ñoom it jikko yañ ji ci ñun day sore na ak lool lu mel nii nga xam ne moo fi xew rawante na nga xool ci wàllu alxuraan jëmmi xaru wala taqtulu anfusakum inna allaha kaana bikum rahima yàlla nee na bu leen xaru ndax man dama leen a yërëm kon bu leen di rey seen bopp waaye la ca gën a garaaw nag mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam li wax ci ko xaru nga xam ne nee nit ku nekk la nga xaroo boo ëllëgee yom la xiyaam ca loolu lañ lay mbugale waaye la ci gën a yéeme suñ boroom subhaanahu wa taala lu méttee méttee méttee la wax ci koo xam ne dafa rey boppam dafa xaru la yàlla jéggal ñi nga xam ne ñoo ko def ndax yàlla moom bari na yërmande te boo demee ci sóoratu nisaa yi wax dëgg lam fa tudd moom xaw naa doy waar nee naa nag nekkul ne eh, jëf ju mujj ji kooka laa jëmale wax ji déedéet déedéet waaye daal boo demee ci sóoratu nisaa yi nee na wa man yaqtul muuminan mutaammidan fa jazauhu jahannamu xaalidan fiiha wa qadiba allahu alayhi wa laanahu wa aadda lahu azaban azima képp ku rey benn jullit benn waxumaa nga ku rey ñaar ba jëm kaw benn jullit bu defu dara nga rey ko ci lu dul àq lislaam te yaa ko ak fayam nee na mooy jahannama sawara muy benn ñaaral ba xaalidan fiiha da sax ñetteel ba wa gadiba allahu yàlla mere na ko merom yàlla doy na sëkk ñeenteel ba wa laanahu yàlla rëbb na ko mooy yàlla génn na ko ci yërmandeem juróomeel ba wa aadda lahu azaban azima yàlla mi koy xaare mbugal mu metti azaban azima benn jullit benn waxuntuma nga yokk ca leneen kon boo xoolee ci wàllu sunu magi diine xoolee ci sunu magi aada lii mu du fi cosaan waxee nag tubaab yi noo ñoom dañoo yàqu ba noppi ba ñoo yàq te nit ñi yeewuñu xamuñu loolu moo tax seen programme yu bari yëpp andi ko fi nañ wàññi njur mi nañ def nangam jigéen ñi nañ leen libéré ñu dem liggéey jigéen daa daa war a liggéey lu tax jigéen ñi rek di nekk ci kër yi waaw nekk ci kër da liggéey loolu lu xoromu la koo ne femme au foyer maanaam jigéen ju nekk ci biir kër dañ ko déedéet da ngaa war a liggéey mel ne foofu ab liggéey dafa amul waxuñu ay raxas bool ak yooyu de déedéet jigéen yàlla moo ko njëkk a wutal ab liggéey liggéey bi gën ci liggéey teewut nag bu amee beneen temps mën a def liggéey boo xam ne yàqulu ko dara ci njabootam ak borom këram kooku ayut waaye léegi li xew mooy da ngay teg na la sëb sëy sànne ko nee dem liggéey déedéet kooku baaxul teg fële sag njaboot ak toppatoo leen wala nga dem wut keneen ku leen toppatoo nga boole leen ak sag njaboot njaboot gi nga xam ne yow yaa leen war yow yow yow yàlla moo la booleek ñoom nga yar leen nga dem wut luyee keneen na ko yoral ma njaboot gi man ma dem def lan ndax tubaab ñoo dugal sa bopp loolu jigéen daa war liggéey jamono ji léegi neexut léegi góor ñi defaruñ dara nangam indi say lay yoo xam ne wut waaye bu fekkoon ne yow jigéen ji dangaa laaj sa diine laajoo tubaab bi de <clears throat> laajoo fi adduna toll néewoo jamono ji déedéet am nga loo gëm laajal loola xool ba xam ban rôle la la lislaam jox yow jigéen liggéey bi gën gën a rëy nga xam ne koo wóoluwoo doo ko jox moom la ko yàlla jox mooy lan mooy na defar société bi ëmb am doom xam ne koo ko defaloon góor boo boo ko joxoon góor mu faatu attanu ko ëmb am doom yar doom ja defal ko ay jikko yu rafet nga xam ne képp ku juddu moom ci loxoy jigéen ngay jaar formation bi ngay njëkk a def jigéen la ko yàlla dëkk yow yaa koy defoon yaa koy def jikko yee njëkk ca moom di ko yar di ko jàngal lépp kartan nga muy am ak yeewoom am xelam am lépp métier moomu moom la yàlla jox jigéen ne ko yow nit bu nit nit li ma li muy rëy rëy président yi euh, yorante yi ku mën a doon ku juddu formation bi njëkk yow rek laa ci wóolu yow jigéen defal ma ko léegi tubaab bi nay jigéen yow lañ laa yab lislaam dalaa yab lañ leen a bëgg a nax waaw demal demal nga defi ni góor ba noppi nag bi yàlla dénkee loolu jigéen dana góor yow yaay yaay surgab jigéen yow demal nga génn demal nga def mécanicien demal nga menuisier ji demal nga jàngale ji demal nga tukki di fanaan ci nees bi di lekk ñam wax na ci frigo lañ koy denc mu am ay fan wala ay weer mën naa am <clears throat> loolu lépp dee ko def ngir lan ngir teral kee mooy jigéen mais ma dénk société bi nga ne li ma ko dékk mooy moom mooy mu jagal adduna bi moo tax ñu ne àdduna ab société la jigéen mooy directeur bi na ne góor surgab jigéen la di ngay boo demee ca marché léegi góor ñi daj di sonn yenu ay saako yi dis lépp ngir jigéen ñi rek ci kër gi am jàmm tubaab nag daal di ñëw daal ne jigéen loolu yàlla dénk la baaxut dañ lay nax loolu xeeb naa ko génnal ni góor di def ngay mbëkkante ji waaw dell dem ci bureau yi ah moo tax boo demee ci bureau yi ñun la ñuy sol ak la ñuy mën a yendoog ay góor ñoo xam duñ say jëkkër suba nga ne moo ëpp li ngay nekk sa jëkkër lu ci ëpp ak mooy yàlla mën na caa yomb tukk ci ab yooyu jaxasoo góoñu lu ne dugg ci nekk foo xam otel bu la neex jël ah loola bu la yàlla dimbali wax ñoo ñu koy def dañuy def ak mooy yàlla de waaye bu la yàlla lu jafe-jafe lay doon de loola lu jafe la génn nga dem bëkkante ji la yàlla wax la yàlla la yàlla sant góor yow lemal defi ko jamono ji daa metti léegi jamono romb na foofu daa dugal sa bopp yooyu jigéen daa war a liggéey nangam nangam nangam waaye bu fekkoon ne lu bon bon jigéen buy liggéey day day ñaw wut place ci buntu kërëm wala fu ko soriwut jamono yi nga xam ne ayewut wala nangam nangam mën a teg doom man koo nàmpal mën a def nangam waaye duy sa ñaari bi boroo ba mu fees bàyyee ko mbindaan mi teg ko fa dem sa yoon ne ma damay liggéey nangam na bàyyi ko fa nga ne xale bi doo ko yar doo ko def dara te yàlla yàlla yow la koy laaj yow la la waxoon nga yar ko ne na góor gi na koy dundal wal walidatu yurdi'na awlaadahunna hawlayni kaamilayni liman arada an yutima radaaxa wa ala al mawludi nak moy jeukar ji lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf jëkkër ji moom moom na ñëw di leen sàng di leen moom na nekk seen surga di leen liggéeyal waaye tubaab bi nee na jigéen dañ laa xeeb génnal nga dem bëkkante ji moo tax jigéen ñi loolu la moo tax dañ ne boo bëggee yàq ab société rek fexeel ba yàq jigéen ñi rek gëm seen bopp boo seetee théâtre yi yëpp li ñu fay gis mooy la mooy jigéen ñoo xam ne ñoom dong ñoo yor seen i kër yor sa appartement moom ji moom kepp jigéen ñoo gis ci théâtre ma nga yor oto ma nga def nangam ma nga def nangam mooy loolu lañ bëgg a gëm loo nit ñi acca génn leen dem wuti su ko defee jigéen ña toog ci kër yi nag ñoom dañuy ñee lool jigéen ñi nekk ci série yi ak ak théâtre lañ leen a ñee ah waaye sol lim sol xoolal nanga xoolal ak takat dañ leen a jël dong wutal leen ay yére wutale solal defar leen bañ jekk ñu teg leen ci télé bi su ko defee yow jigéen ñi nga def na nag lii dëgg la ñii ñu am xaalis lañu ñoo yor oto yi ñoo yor nangam nga xeeb sa bopp xeeb sa jëkkër xeeb sa kër xeeb la la yàlla jox xeep rôle bi la yàlla sédd waaye bokk na ci tubaab tubaab lu tamit mooy góor ñi nga xam ne da takk jigéen naa ko ci yow dong laa yem nangam du ma takk keneen te yow wóor na la ne yow loolu mënoo ko wóor na la ne loolu mënoo ko suñ borom mi bind góor xam ko ne ko ah, waxuma la ne nga nga nga yem ci benn wala nga bañ cee yem waaye daal dama ne may naa la ba ñeent ndax xam naa la góor ñi nag ñi nekk intellectuel nee nañu ci seen i wax ñu nekk intellectuel waaw les soi-disant intellectuel ñoom daal dem signé nag ne ñu man benn jabar laay jël nii moo gën a nit ay takk ñaar nang daal di sikkal la la seen maam yi xamoon sikkal li leen seen diine sant wala boog li leen seen diine may ndax takk ñaar ak ñett loolu du obligation góor gu am benn te nga gis ne benn bi doy na ci yow man nga ci dund sant yàlla waxu kenn wax la nga takkaat la ko waaye nag bul dugg ci loo mënu dem ba ci biir nag nga gis ne yow la nga amoon lépp jox nga ko jigéen ja mu bind ci kontaan ba jël sa kër def ko la mu dem ba am problème di la indi problème yow sa xol jeex nga ne damay xaru ba ca tegu mooy jullit bi situation boo mën a toll ci àdduna waaye waaye xoolal sab yonante ba mu ca tollee moom nu mu ko dundee woon yow am nga royukaay ala bi dikrillaahi tatmainul xub boo jaaxlee xoolal wéeru sa tubaab bi moom amul amul amul ngëm-ngëm moo tax tubaab bu jaaxlee daal di xaru ndax ñoom dañ naan lan in hiya illa xayaatuna dunya namuutu wa naxya wa maa naxnu bi mabxuusiin nee na nun genn dund am muy dund ak adduna gi boo ko xasee ba dund dekki amut tubaab lool la gëm moo tax addunaam bu demee ba yàqu mu xaru ndax moom lool la gëm waaye yow miy julli nga xam da ngaa gëm bàmmeel gëm dekki gëm réglé ëllëg yowmal xiyaam yow am nga foo sukkandiku gëm ne nattu day am waaw lii ma am yàlla nattoo ma soxna su soo xam ne daa dooy waar wala nangam wala nangam nangam dëgg la lool de xam naa ne lii saahir la waaye boo demee am na bàkkaar bu ma ci yàlla bëgg a teggil lii coono bu métti bi may jànkote sama soxna si jommu la yàlla daa bëgg a leeral sama bàmmeel rek waaw te yàlla kat xarit ba lay musi baal ngir dara jaal ko mbaata muy ko muy baal kon jullit moom daa am fu mu wéeru bu jaaxlee rek yonente bi sallallahu alayhi wasallam ay soxnaam mas nañ koo sonal ba mu génn kër ga génn kër ga dem ca jàkka ja am fa weer ngir ay coono ba alxuraan moo intervenir yaa ayyuha nabi li ma tuharrimu waaw asa rabbuhu in na ay suñ borom di leen yedd bu ngeen wëttandiku dinaa wax yonante moo fase leen ma wutal ko ñeneen an yubaddilahu azwajan xayran min kunna kon sam yonante yow moo la gën a sonn moom daa juddu gisut baayam mu teg ca lu néew gisut yaayam ay maamam faat nangam mu yaru nekk jirim sonn nekk ci ay xare yéefari sonal ko bi sonal ko ñu njabar ko lu ne ñu def ko ko kon yow boo tollee ci ndekam sab yonante moom la ay soxnaam doon sonal ba muy génn kër ga mënatu faa nekk waaye yow muy julli bu la sa soxna sollee kon loo war a def da ah, man kat lii man degam simple jaam laa kee yàlla di wax ak moom naan ko mane mu naan waaw di ko wax yu ndekam moom moo mënoon dund lee rawatina man kon ab jullit yéefar dafa amul wéeruwaay ab jullit nag daa am wéeruwaay dafa xam nattu xam ne yàlla dana tegee nangam dan la teg lii nga di ko gis fekk na yoo lii xéewal la nangam xasa an tuhibu shay'an wa sarun lakum léeg nga bëgg dara fekk daa bon léeg-léeg it an takaroo seen woo xeer léeg-léeg nga bañ dara lool jàppe ko musiba fekk xéewal la yaa ko xamut kon ab jullit day am wéeruwaay waaye daal aaday tubaab yi tàmbalee dugg loolu ñu gëmloo ñu ko xeebloo na sunu bopp xeebloo na sunuy maam xeebloo na suñu cosaan xeebloo na sunu diine heure bu ñu fa bàyyee loola dem ca lee rek musiba moom day daal di musiba moom day daal di day daal di lan day daal di am suñ borom moom wa man aarada an dikri fa inna lahu maishatan donka képp ku fi bàyyi sama programme man yàlla dem na nga wut beneen programme dund gu metti lay dund dund ko xat du am jàmm mukk yàlla na ci yàlla musal allahuma salli